moom Guy Marius Sagna mu samp aw laaj ne ndax mën naa voté aw loi d'amnistie te xamuma lan moo xew ci mbiru Didier Badji bu boobaa sax ndax duma trahir soxnaam si fi bàyyeekoo di Daba Diouf maa ngi xaar boobu lépp loi d'amnistie yegg si ngir ma wax ci sama xalaat waaye laata muy yegg si li nga xam ni moom laa gëm mooy que Ousmane Sonko soxlawul boobu lépp loi xalaat lu wute ak loolu dafay mel ni dangaa jàpp ne moom il est coupable liñ koy jiñ yëpp moo ko dal di Diourbel ba tey mu ne xalaatuma ni détenu politique yi nga xam ne ñoo am ci réewum Sénégal soxla nañu loi d'amnistie xalaat lu ute ak loolu itam jàpp na ni day mel ni ñoom liñ leen di jiñ yëpp ñoo ko def sax man Guy Marius Sagna maa ngi xaar justice bu Sénégal dal di may wan ci ñoom ñooñee lan moo ci def li ñu koy jiiñ te sax nag ab loi d'amnistie bu ñu koy voté en général day fekk ni jugement am na ba noppi ñu xam dëgg gi ku ci nekk ñu joxoñ la la nga daal di def buñ ca jógee nag nekk li mel nag moo waral moom Guy Marius Sagna mu sampaat ay laaj mu ne ndax détenu politique yëpp dañ leen daal di jugé ñan ñoo ci nekk ay coupable ndax a faat ay ñoom ñoo ñëwee nañu leen ndax condamné nañu leen ndax ñoom la nañu leen lu yëpp nekk ay laaj yoo xam ni moom Guy Marius Sagna samp na ko waral mu ne maa ngi xaar boobu lépp luwaan d'amnistie slogan yi nga xam ne moom ca lay dox mooy non au coup d'état de Macky maanaam président Macky li mu bëgg def ci réewum Sénégal moom Guy Marius Sagna d'accord ci benn yoon 2 avril 2024 mooy terminusam ca lay jeexal victoire des patriotes dès le premier tour yeneen mooy patriotes yi daal di jël bopp nguuru réewum Sénégal waral mu ne Sonko mooy Diomaye focus Guy Marius Sagna AGT News Ousmane Sonko n'a pas besoin d'une loi d'amnistie Penser le contraire, c'est accepter qu'il est coupable. Ibary Sagna a publié ses propos hier, je le cite. Daba a été enterré aujourd'hui, jeté aujourd'hui à Fatick aux côtés des membres de sa famille et des membres de la famille de l'adjudant chef gendarme Didier Badji, son époux, disparu depuis le novembre de souffrance. La raison pour laquelle Guy Sagna s'est posé la question suivante. Puis-je voter une loi d'amnistie avant de savoir ce qui est Daba Diouf. J'attends le projet de loi d'amnistie pour donner mon avis, mais en attendant, ce que je crois est que Ousmane Sonko n'a pas besoin d'une loi d'amnistie Penser le contraire, c'est accepter qu'il est coupable. Je ne pense pas que les détenus politiques ont besoin d'une loi d'amnistie. Penser le contraire, c'est avouer qu'ils sont coupables. Or, j'attends encore que la justice sénégalaise nous prouve lesquels des milliers de détenus politiques sont coupables. En général, une loi d'amnistie est votée après tous les jugements. Vérité d'abord et puis pardon. peut-être ensuite. Voici pourquoi Guy Marius Sagna s'est posé encore des questions, à savoir tous les détenus politiques ont-ils été jugés, lesquels sont coupables, tous les nervis et agents de forces de défense et de sécurité qui ont assassiné des dizaines de manifestants ont-ils été jugés, condamnés, ceux qui leur ont donné l'ordre de tirer, de torturer, ont-ils été identifiés, jugés, condamnés? J'attends la loi d'amnistie. Tels sont les propos de Guy Marius Sagna avant d'ajouter non au coup d'État de Macky 2 avril 2024 terminus victoire des patriotes dès le premier tour Sonko mooy Diomaye focus signé Guy Marius Sagnan AGT News